bi la wax leen ci ñàkkum kaaraange gi la insécurité ci réew mi waaw direct news ne ñàkkum kaaraange googee ca mbedd ma woon waaye léegi nag ca biir kër ya la maar day taali maa la ko wax léegi suñu biir famille day la musiba mbaaba kumbay di am laa la wax yéen a kaa gi ne waaja ba mu fasee kon jabar ja waaw xam naa da koo mënta bis daal la jot mu daal di dikk jël na doomam ju góor ji lée dugg ak moom ci benn ruq kon ca biir kër ga waaw daal di takk sidit ya allahu akbar waaja ca boppam tam daal di xaru inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yéene kaay pap jogoy fe bi ne xoola ci diwaanu Tiwaawoon waaw benn waajoo xam ni kon bopp papa ja ca boppam kon la ni ku tee daal di dagg bopp baayam maa la ko wax sànni ca biir teen allahu akbar xale bu góor ba daal bañ ko tegee loxo daal la mu wax mooy moo bàyyi coowal suuf moo leen boole la ilaha illallah am na ñenn ñoo xam ne nag fi mu nekk lé ah nee nañu nañ leen indiwaat ko rey ñu rey la benn moo rek 2004 na kon lañ ko fi jëlee woon libération yéene kaa ne xoolal ma coowal xale bu jigéen bu ndaw bi def a ñeent waaw waa ja nga xam ni kon maanaam moo doon yegg ca kawam rek def na ko atu yàlla la daal di kon am ay mënta moom boppam de déet indépendance su justice kon mënta am ci mim mar day daal ah waaw comme kapale ba ca boppam kon day yëkkati kon ñeen fukki million di ko jébal magistrat yi lée ñuy dugal seen poos laa ilaaha illallaah waa forum civil ah jàpp nañ ne gis bi dañ a ko war a defaral ngir dindi tuuma yi nga xam ne nag maanaam mooy jóge ca exécutif ba di palais ba dëgg la Birahim Seck forum civil ci 24 heures waaw nee gis nga indi ay coppite nag ci nee gis nga fukki fan ak juróom ci weeru juillet 2020 ca conseil des ministres waaw président Macky Sall ci boppam kon fa la ministre yëpp ne leen déclaration patrimoine wax leen ñaata ngeen yor ci seeni compte seeni alal gën a sori fanweeri fan ak benn kon ci weeru ut gilee ca of naaka ah, beneen problème bu bokk boobee de li yàq adduna bi daal ah, mooy rawale bañ a fay impôt jël alal ja daw ak moom bitim réew paradis fiscaux yaa kon ci diggante liggéeykat yi ci wàllum justice ak gouvernement bi ah diggante bun aya ak maître Malick Sall ministre de la justice waaw ginnaaw ñaar fukki fan ak benn ci ay jafe-jafe jàmm kon mujj naa ñëw alhamdulilahi rabbil alamin jàmm dikk na fa jàmm amul kay mooy Sandaga ubbil vox populi nañu commerçant yi nga xam ne nag maanaam dañ leen a recasé waat waaw jafe-jafe bi nga xam ne kon moom la ñuy dund ca Sandaga googe ëpp na parce gis nga champ de course nga xam ne kon moom lañ leen jox waaw daa ndaw lool xat lool mooy jafe-jafe bi de dama la gisatuñu ay client laa la wax ña doon jaay ñaar fukki junni dañuy xëy suba ba ngoon duñ soqee ko laa la wax zéro franc la ilaha illallah te jamono jooje su ko tijjee nee na wàllum corona gi kaa importé yi waaw ñu ngi dellu soir yi critique yéene kaa ne gis nga corona googee waaw moo ni nag fii ci Sénégal mi ngi wàññeeku de dëggantaan enquête yéene kaa ne ku nekk nag daal di màggalee sa ndax wàllum corona gi waaw xalaat baa ngay dox doxam de Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma ci na Serigne Mountakha xalif général ak murid yi ne jot ma nga ca loxoom de kàddu gu mujj gi nag le quotidien yéene kaay ne delluwaat nag ci njàng mu kawe mi day waaw signature yi bari na lool waaye université Gaston Berger ke jàppal bàyyil ay jafe-jafe moo fa am de laas université Cheikh Anta Diop Ndakaaru gi lée waaw directeur ba dellu na ginnaaw de évidence yéene kaay ne maître Moussa Diop directeur général u Dakar Dikk waaw gars yi nañ boppam bi saam ko ci marché bi de mar di taali ndax li mu wax ci troisième mandat wu président Macky Sall bi lée à Dakar moom la ñuy dund jafe-jafe am na na opposition bi kay gën nañoo daral na kon lañ doon def waa Pastef bu Ousmane Sonko waaw feeñal nañ gars yi de masque ya wàcc na de waa Ousmane Sonko jàpp nañ ne gis nga opposition bi waaw daf ci am ñoo xam ne kon dañuy laale ak nguur gi laa la wax dëgg la critique yéene gis nga pro de résistance boobee nag la ko gën a boole nguur gi lée mooy Aly Ngouille ñoom daal bëgguñu waa ji daal organiser élection yi Abdou Mbow moo aj na élection yi bu yàgg yéene kaa gi ne gis nga seen a loolee eh, mooy nekk président de la république jiite tamit parti mais loolee faux débat la bulletin unique baa ngi nii lee taxawal commission électorale indépendante baa ngi nii enquête yéene kaay ne gis nga statut opposition boobee ak moo koy jiite waaw waa Pastef jàpp ne gis nguur gi lee waaw bëggul dara lu dul féewale donc opposition bi laa la wax dëgg la parce que nag farata gi nekkul foofee xam nga lan mooy farata instant bi ñu ni lee mooy nit ñi taxaw génnee ne kon ci wàllum yoo xam ni kon gouvernement Macky Sall mi la tëlee ko incompétence Ousmane Sonko ak ña moo day waa Pastef waaw nee na opposition beeg yooyee ka koy def intéressé wu leen xaw ma fu xabaar boobee jugee waaye jugeewul ci seen réunion yooyu de te wax naa ne wuñ ko kenn nag laa la wax du opposition bi la du gi ñëw Ousmane Sonko ak ña moo di waa Pastef les patriotes nee na gis nga parti politique day li muy yor lu gën a am solo wallaay askan waa ko koy jox tractation politicienne moo ànd ak koppar goo xam ne ci ndoddug askan wi lañ koy jëlee jox la ko ñaf source Matar Ba wax na ministre des sports Matar Ba waaw nee na gis nga ci wàllum CNG gi ak ki koy jiite waaw gars dañuy météo di wax rek li ñuy wax nii yëpp pour di commandité la am na ñuy def sax ay erreur di déclarer seen candidature ci wàllum poste président CNG te poste boobee nguur gi mooy tànn mais du élection Macky dee ñam àndal sax dañ koo mere Baye ma jéemuñu koo xam sax waaye nag Cheikh Abdoulaye Mountakha Niass waaw moo ko jàppale de waaye tey daal li ñu gis mooy président Macky Sall mi la daa wor maar day taal waaye na dem rek erreur am yi muy def nii dana ko yeddi tribune yéene kaane Pierre Atepa Goudiaby day waaw la mu bëggoon ca Abi Ndour maanaam kon ñu jëlee rek Youssou Ndour bi ca bërëb boobu eh. Abi Ndour de Vox Populi ne présidentielle 18 octobre fii ci Guinée waaw Alpha Condé troisième mandat la bëgg Alassane Dramane Ouattara ñaareelu ñetteelu weer bu 2020 bi lée li yokku bari na dëkkuwaay bi yokku na courant bi yokku na lekk gi yokku na ci senegal njaay gi <laughs> lii nag moom mooy farata courant bee lekk geeg dëkkuwaay weeg te loolu yëpp pétrole bi nag mën na koo saafara moo tax ma naan la suul gaz du ko tere xeeñ de te mandat tam dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal alaaji tëjal